bu bi xew Gaza muy agression bi Israël di def ci kaw population Gaza génocide euh, ay acte terroriste xawma sax ndax baatu terrorisme mën nañ ko jëfandikoo ndax baat bi dañ ko politiser léegi waaye noo xalaat ci ñaawteef rek Israël a ngi koy def contre Palestine ay xaleel rey na ci ay junne naka noonu ci ay jigéen naka noonu ci ay civil te résistant ya nga xam ne ñoom lañ wax ne ñoom lañ bëgg a jeexal muy Hamas ak ña ànd ak ñoom tey la ñëpp doole tey ji ci New York nag bi réew yi dajee woon ngir foote benn résolution bu jëm ci cessez-le-feu ñu tuddee ko hudna insaniya wala human ceasefire xam naa ceasefire buñ ca tegee bu humain mooy kon li jiitu yëpp Israël li ko def delluwut ci ak humanité daje boobu nag ñuy voté téeméeri réew ak juróom fukk ak ñett ñoo voté ne nañu arrêté xeex bi téeméeri réew ak juróom fukk ak ñett cent cinquante trois fukki réew nga xam ne Amérique ak Israël ca lañ bokk ndax li Israël ne yëpp kat Amérique ko ci waaye bal moo ko ci dimbale France li ñuy doy waar doy waar bokk nañ ci cent cinquante trois yi voté ñu def cessez-le-feu fukki réew ñoom ñoo contre ñaar fukki réew ak ñett ñoom dañoo abstenir Ukraine gi nga xam ne jamono jii may wax ak yéen mi ngi Amérique di wut si ndimbalkat ci ñi ab soutenir la bokk seetal kuy wax ne dangaa bëgg ku la dimbali ci ku lay agressé te nangoo taxawal agression bi ñuy def fële te nga xam ne moo gën a sax garaaw naka noonu Allemagne ak Angleterre ci ñu abstenir lañ bokk ndax ñooñee kat lu Israël nekkee ñoo ca ànd dogal bii nag nga xam ne majorité bu jéggi dayo ñoo ko voté ñu ngi xool ndax ONU dana am fu laay imposé Israël mu doxal daje mu doxal ndogal bi wala la daa am rek mooy continuer di am moo tax toujours may wax ne soo demee ba yëg ne amatuloo benn njëriñ seetal ci ONU boo xoolee oni seen i njëriñ rek moo moytuwul da nga naw sa bopp yal na yàlla jeexal guerre bi yàlla may ndam Palestine yal na yàlla libéré Palestine yëpp di ko dalee ci dex ga ba ci géej ga yal yàlla dimbale ñun ñëpp ñu dund ba julli ci almasjidul aqsa te fekk ma nga libre